salaamaaleykum mbokk yi maa leen di nuyu di leen ziar su nekk maa ngi nuyu si turam ak santam bépp éleveur bu nekk ndar maa lay nuyu di leen ziar baax baax a baax di kontaan ci li ñu def nii mbégte la sag la li waroon na am bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg jaajëf waay. jërëjëf Alaaji tey ñëwoon seet si la pour waxtaanee sa élevage tey jii Alaaji maa amoon benn question Alaaji kañ la commencé yar. buna alaji commencé na yar bu yàgg yàgg yàgg dama sumbilu ko rek fekk sama grand frère di eh, yar après ma jël affaire yi ma continué si moo waral ma nekk si ba léegi nii. dëgg la kon mu mel ni alaaji élevage doon la nga judd gis sa grand yar nga tamit nga topp si tànk yooyu noonu mais alaaji moom lu petax te ñi dañ gis nañ fi li ngay yar bëri na mais pourquoi alaaji taamu yar petax. waaw mais élevage nit ku nekk am na loo xamante ni moom nga gën a bëgg si biir élevage bi man ci élevage bi béton moom si gën moom laa si gën a bëgg ndaxte maa ngi siy gis sama bopp maa ngi siy def sama alal mais maa ngi siy gagné te nekk na loo xamante ni daal man daf ma neex si élevage yëpp moom si gën a neex man comme bison. dëgg kon ni ko El Hadj rek élevage sa passion la. avant nga avant nga siy seetu dara dafay di sa passion mais tey El Hadj ñëw fii nii gis fi xeetu race bu nekk te jii nii si xayma rek te jii boo ma doon wax ñaata race ñoo nekk fii nii. ak ah, fii nii li fi nekk si race euh, daanaka yow xam nga lépp mais dama lay jox exemple lu fi nekk fu na ay 30 race yoo xam nga race yëpp doo leen mën a lim. am na ay Bula Bamaromi am na ay Monin am na ay Damascène am na ay voyageur couleur. am na ay voyageur manto c'est race dañu bëre daal am na ay Rostov ay Volga ay Tambour bëri na ay race yu nekk fii daal daanaka presque daal bëri na. dëgg la dëgg la donc ma tey lu toll presque trente races mais tey jii ko trente races ak fusion fi mu toll tey tey loolu investissement la àllaaji tey boo doon xayma si xaalis tey si xayma rek xam naa ne tey jii mënoo xam exactement ñaata mais bëgg na xayma si xaalis tey loolu muy toll. ah daanaka daal affaire daal fi mu moom xaalis bi pour nga xayma ko normal normal moom mënoo ndax da jënd di jaay di jënd jëndiwaat di dugalaat noonu la xaalis bi day varié day tourné di dem ak di ñëw rek kenn mënuloo wax exact ñaata la dangay ngay après rek ni temps mais mënuloo wax exact ñaata la yow xam nga petax yi jar ay paire cent cinquante mille jëm suuf kon daanaka booy xool li nekk ëpp ay 4 millions yooyu loolu rek laa la mën a wax tënk dëgg la dëgg la si tënk tey jii nii nii nii ñun bu ñu xoolee xamaa ni ëpp na sa 4 millions mais xëy na da nga tënk rek. waaw pour tënk. waaw mais tey jii nii 4 millions alaaji ñun nga éviter que si ay petax tey jii bu ñu gisee somme bu toll noonu loolu lay wax maanaam bën bën la nga am si si investissement bi nga def na ñeen boo xam ne amoon tey jii nii daanaka feneen fu ñu ko def nga dugg ko si élevage rawatina si pigeon sa waa kër nan la gisee loolu xam nga xaalis bu fekkee dama la xaymaal ay 4 millions ma jël ko def ko si pidax yi nit ku nekk am choix xam nga nit mën na am 4 millions dem jënd oto wala jënd leneen def ko si mais man lii laa bëgg sama 4 millions si lii lay dem lii moo ma neex moo tax ma jël sama xaalis investir si sama kër du ma wax dara nit ku nekk ak bëggam nit bu bëggee dara da nga bàyyi mu dem xelam moom xam na tax mu def alalam foofu soo ko bañee final noonu la demee am man sama waa kër amuma ak benn problème ci élevage bi rek sama xaalis ñoom xamul nu mu demee duñ contrôlé li may jëndee petax wala dara li jënd wuñ daal. comme mel ni tey maanaam yow alaaji yaram yomb na maanaam daf si investir mais aussi njaboot gi famille bi soxna si dañu ànd ak moom ci loolu noonu. amoo ci ay jafe-jafe. non aw ma si benn jafe-jafe jafe-jafe si élevage moom mënut a ñàkk ndax tey mun nga am ay sujet ñuy dee. nga jënduwaat ñuy produire mais ku amul doo deele ku yorul doo ni deele naa kon lool ci biir élevage bi la bokk jafe-jafe boobu moom mooy jafe-jafe élevage dee mooy jafe-jafe élevage li des yàlla mën na la nga am loo leen jëndalee xontu ay yi demee noonu daal moo si nekk amul benn jafe-jafe. waaw mbokk internet Saint-Louis TV comme ni nga gisee tey ñu ngi am mbégte ñëw fii ci Pikine dalal champion mag Alaaji ñu jox ko kàddu gi tey ñu waxtaan si élevage am tey jii alaaj tamit ñu gisaat ay races yu bëri waaye ñu ràññee nii da nga investir lu baax lu bëri ci blanc Pomeranie lu tax choix boobu Pomeranie. ah xam nga élevage boo koy def dangay ngay dépassé da ngay jóge dem boo bëggee da ngay ànd ak élevage boo bëggee ne dangay def élevage da ngay ànd ak élevage yi avancé ngay xool li nga xamante ne moom la nit ñi bëgg. nga def si sa alal liggéey si balaa nit ñi di ko bàyyi fekk yow liggéey nga si utiwaat leneen mais mënoo toog benn élevage kese benn benn benn kii benn place kese nan lii laa ma changé élevage du ma def nii doo dem mënoo dem ndaxte affaire bi da ngay xool li nit ñi bëgg nga mën ci liggéey bulaa yi da ngay toog benn jamono kenn dootu ko bëgg léegi beneen beneen race yow du sax diggante la rek léegi nag moment boobu da nga si investi so xaalis liggéey si gañe li ngay gañe xaar leneen ñoo nga àndaat ak moom loolu rek moo si nekk kon mu mel ni la déggee élevage tendance la mais vision la. carrément. d' accord mais El Hadji tey jii nii aussi benn question toujours si blanc yi nit ñi yoon blanc dafa naqari yar race bu naqari la ndax bul bi ak jabot bi amoo problème ak blanc yow. Euh, élevage lépp lu doomu aadama di yar am na jafe-jafe mooy li ma la waxoon rek mën nga def loo xamante ni dañ naan dafa gaaw a mën nga yor ay béro du ñu zabu dee. yàlla mooy rey mais xëy na dañu bu am na yenn lekk yoo xam ne dañ bëgg a lekkee day am problème day def nii mais kooku man gëm naa loolu gëwuma ko ndax li naan day rey bu laa moom laay xontee mais dama gëm dee avant soo gëmee dee après li si des amul problème man dama gëm dee moo tax bu bu ne doo xonte lii day dee wax day dee lu dee man dama koy xontee lu dee dafa war a dee xëy na nag ñoom dañ ci bàyyi seen xel ba mu ëpp ba mu nekk benn affaire boo xamante ni léegi dañ ko def seen biir bopp yi da lay travailler si bulaan toujours mais man man man moom loolu def mag sama bopp man damay xonte li naan bulaan du ko lekk yëpp moom laay xonte waaw alaaji mu ni moom li naan bulaan du ko lekk yëpp da koy xonte ndax tey comme ni koy waxoon rek ñu gis fi ay bulaan yu bëri pamédaan yi muy race bu metti race bu cher mais race bu ñu bëri ragal kon alaaji tey si siège boobu rek alaaji yow lan ngay xonte man li may waxoon de mooy liñ jàkkaarloo amna na blé am amna mboq am brevi, parfois bref bi day am xam bu fa tolloo moom day ser ndax daa ngi ay kilo neuf cent tax ma boo yoree yenn quantité yi ko toujours de temps en temps rek si boole waale sinon moom mboq ak dugub blé moom toujours man dëgg la dëgg la waaw tey tamit bi ñu ñëwee sa kër ñu gis ay saaku gis ay saaku nga ay alaaji xont pigeon tey fu mu toll. xont pigeon dugub bi day yéeg di wàcc toogul benn place nii nii mboq mi mi ngi jar 9000 euh, dugub suuna bi moom moo cher temps yi dem na ba ay 16000 15000 euh, blé bi ñu ngi koy jëndee presque 13000. saako bi par 50 kilos. léegi alaaji bu ñu dellusiwaatee si pigeon yi. mais bu baax si production yi. Mm-hmm. alaaji saison bi passé noo gisee sa production yow. Euh, saison bi passé am naa production mais ñun dañ am benn problème euh, bu nu am mooy variole te lu nu war a gën a mën a gëstu ñun si éleveurs yi war nañu fexe ba xam lan mooy traitement wu variole ak période bu ñëw lan nga war a def ba doo am yenn problème yi ndax variole ñii mi ngi naan kaw ku tilim la ñii ñi ngi naan ay problème lii la mais man variole teguma ko kaaf bu tilim dafa nekk feebar boo xamante ni dafa am moment bu muy ñëw la ñun nag ñun éleveurs yi war nañu xool bu baax xalaat si gëstu ba xam période boobu noonu muy ñëw lan lañ mën a def ba nga xamante ni du dal yenn pigeon yi parce que variole si li mu gën a soxal mooy pigeon chair yi bulan yii yenn kii mais voyageurs yi bu ñu amee variole ñoom mën nga leen bañ a après dañuy dem seen yoon mais yeneen race yi si dal. boo si gaaw da nga koy perte saison bii nii produit naa blanc yu bari bari bëri mais variole la perte blanc yi. dëgg la dëgg la donc mu mel ni variole sonal trop éleveurs yi te El Hadj wax na nii éleveurs yi war nañu gëstu pour xool nan la ñuy def ma sa traitement mais prévention ndax traitement day fekk ñu naan béy wéy na mbuus kon dañu mel ni éleveurs yi war nañu xool nu mu def. pour jéem a wut ay garab pour prévenir variole waaye El Hadj à part variole est-ce que am na yenn feebar yu bari na temps yii si am na benn feebar boo xamante ni jaare la jaare ndox la pere bi day lekk mais day jeex ba après dënn bi day def xoot mais ba léegi kenn mun la wax bii garab moo koy faj boo demee ci vétérinaire bi danaa la jox ko bii bu subaa ñu la jox ko bee gannaaw suba la ñu jox la bëri dañu war a xam exact lan mooy faj petax bi bu amee problème bi ba boo jógee nga jub si lu tam jublu ci loolu jël ko jox ko mais boo fekkee ne yow toujours ñu benn garab bi benn garab bi bu yàggee petax bi dootul wér ndax affaire day dem ba mujj poson lay nekk si biir yaram mi dootul faju te yenn garab yu bëri yi bu chronique si yaram bi dootul nen nen bu normal toujours day def ëpp clair ndax dafa am moment boo xamante ni waratoo leen doon jox yenn garab yi moment production waratoo traité wala booy traité da ngay isolé pétax yi am problème sinon après da ngay bëri ëpp clair ndax peut am na garab yoo xamante ne moom bu ko pétax naa ne munul nen ba nen bi baax dëgg la donc bu weesoo feebar yi alaaji am leneen mu suluwaat mooy œuf clair alaaji tey ji œuf clair sonal petax yu bari nuy def pour xeex œuf clair œuf clair moom dafa am si benn euh, fànn bu mu nekkee am na ñoo xamante ni seen kaaf day bëri pitax bu famille yi dee tëb maa leen ñoo leen di dàq ça veut dire que du coosé normal am na loo xamante ni mooy garab yi rek li mu lay wax mais boo seetloo pigeon yi ñu fixé yëpp souvent duna am œuf clair pigeon yu ñu fixé maanaam. mooy yu tëj individuel comme nga tëj leen ci case couple bi kese nekk foofu yooyu bëriwul lu ñuy def œuf clair mais yi circulé moom toujours œuf clair da leen di yomb maanaam si tëb bi parfois bu pexe yi bëree duna am temps pour mu poche normal wala affaire yi demee noonu sinon œuf clair moom loolu moo ko mën a andi. dëgg la donc mel ni tey. alaaji mu ñuy conseillé bu ñu bëggee ñu teg ko def yi ñuy fixé pigeon yi. surtout yenn races yi yi nga xamante ne dañu seer boo bëggee am seen production normale mieux vaut nga leen di casé ba pare di leen fiile bu leen bàyyi ñu tëdd filer bu saison bi tëjee nga bàyyi la ñu récupérer. filer alaaji filer mooy lan. Euh, filer ça dire boo amee ay pigeon race comme blanc yeeg monnet yeeg ñoom seen da am cas boo xamante ne ay voyageurs moo fa nekk bu blanc bi nenee nga dem fixé si voyageurs yi bu nen mais il faut nag nga am sa temps di leen calculer normal distance bi warul passé 3 jours pour file bi bu nu rawanteel ëpp après mën nga filer mu am problème sinon lenn ngay def bu nenee nga jël nen bi denc ko fenn gaawul yàqu ba beneen petax nen nga tegal ka noonu nga mën a filer mais voyageurs yi moom seen nen da nga koy éliminer da nga koy sànni. saison bi dafa am pigeon yoo xamante ni ñoom ñoo gën a am avantage il faut nga produire si bu baax. bu saison bi tëjee vingt heures amul saison heure boo amee kaaf bu baax day jur moom noonu la demee village. donc su ma déggee bu baax El Hadj mel ni yow dañuy say petaaxu raas doo leen bàyyi ñu tëdd boof. noonu du mu leen bàyyi ñu tëdd. mais El Hadj loolu est ce que amul mënul am jeexintal mu amul lu mu mën def lu négatif si petaax yi. mais bu saison bi dee tëj yow xam nga moment bu saison bi dee tëj sa saison bi demee ba bëgg tëj mën nga ko bàyyi mu tëdd deux fois après mu tëj. waaw ma dëgg la nga ko saison bi soo tëj. kon saison dafa dafa war a tijji ak di tëj. ah normalement yow éleveur nga xam nga petax ban heure lay jur xam nga ban moment la mu nekk seen état nii nii xam nga nii nii ñu ngi dugg seen ñu ngi démarré nii seen production petax sedd la ëpp lu muy jur. borom dunq yu bëri sax booy xool sedd la ëpp lu ñuy jur pour ñuy jur normal seen nen fécondé yooyu noonu seddaay bi la gën a bari si borom dunq yëpp nag boo xoolee bu baax bu baax a baax comme ay waaye ñoom yeneen race yeeg yeneen race yi boo limee day bëri yu si ëpp seddaay bi mooy seen moment bi nga xam te mooy moom bi nga xam te ne si lañ war a produire normal moo tax ah mais la moo tax saison ngeen naan saison bi de liggéey naa li ak lii ak lii looloo waral ñu naan saison. dëgg la kon El Hadj suma ma la déggee bu baax saison mooy période sedd bi. mooy saison normal mooy saison normale mais ma ñëwaat ba léegi ci ci bulan yi El Hadj bulan di pétax tey ma gis ñu bëri di si invité di si liggéey ba ñu créé sax ay club bu blanc alaaji blanc lu tax mu am bayre boobu. Euh, élevage boo dugg nit ñi am na benn affaire boo xamante ni dañ koy jël xam nga gars yi fii nii dañuy jël benn affaire rek bëgg ka mais dañuy jékki-jékki rek bàyyi boobu jëlaat beneen mais fii ñaata race bi ndax ñoo fi amoon avant blanc yi bari na yooyu lañ doon wax. Boulaye ñoo xew jamono yi après yeneen dañuy ñëwaat de du yàgg léegi kay. <laughs> waaw ma dégg ni Boulaye moo xew. waaw mais est-ce que kon lu xew ndax ku ni xew daani xew yi. Ah, waaw mooy li ma la wax nee naa la am na yu jiitu woon Boulaye déggatoo leen léegi yi ñoo nekk à top léegi nga déggaat beneen Boulaye wàccaat looloo xew. <laughs> kon mbokk yi internaute bi Saint-Louis TV kon nga waxoon tey gis ngeen baax seen émission parole aux éleveurs. tey ñëwaat fii si Pikine jox kàddu gi suñu champion bu mag bu ñuy wax Alaaji Alaaji lu tax def loo monde euh, man moom euh, dinaa def monde nu ma def monde ça veut dire dafa am pétan yoo xamante ni jeune production gaawul monde dafa am ñoo xamante ni dañ si am sens xam ko bëgg ko di si liggéey comme ay grand Cheikh Gueye ay ñoom Moussé ñooñ ñooy def monde fii si ndara ak ñoom Pape Ndiaye ak yeneen éleveur am na ñeneen ñuy def ay mondain mais ñi nga xam ne ñooy def mondain normal ñetti ñooy laaj gën a xam c'est-à-dire que ñoom dañ ci xam dañ ko xam moom loolu rek la ñuy def nag duñ si jaxase beneen ba tax yooyu rek la def xanaa yi ñuy filé sinon mondain yi kese ñoom la ñuy visé wu. kon su ma déggee bu baax mondain boo koy def da nga siy spécialisé wu di ko def moom kese. carrément sinon doo ci réussir boo xoolee li ma la wax bari na ñoo xam te ne ñu ngi koy jënd. mais après dañ koy jaar parce que ni ñuy demee xam nga li gën a garaaw ci élevage mën nga ñëw sama kaaf fekk ma produire ay cuuju moo nee ba mu bëri nga bëgg yóbbu après yow mën nga yóbbu am sance nga réussir mën nga yóbbu am sance amoo sens du du du mel ni nga bëgg ça veut dire que kon dafa am lu si nekk am na secret élevage boo gis am na secret si biir soit da nga xam nga soit da nga bañ nga xam. waaw mais alaaj tey secret yooyu noonu est-ce que waruñu ko joxe partagé ko. ah mais secret yi ñun éleveurs yi xam nañ nga dafa am nu war a noo ko war a yoree pour mu produire normal xam nga euh, élevage bu amee ay nëbbanteeg ay kiiwantaleg nekkatul élevage élevage képp koo xamante ni ñëw nañ même bu yoree 1000 francs bëgg benn peeru pitax am peeru pitax am boobu di ñëw si yow nga gën nga xam da ngay teg si yoon bi ndax pax bi tax nga koy jaay yow mën nga dem ba jeexal nga ëllëg nga toppaat si ginnaawam di ko wut loolu mooy élevage mais élevage nekkul loo xamante ni da nga koy jël yemale ko sa bopp kooku du élevage kooku bëggee la te am ma loo xamante ni ma téye lépp man de sama kaaf man samay production heure bu génnee amul ma sàmba amul ma dem amul éleveur amul kii ku ñëw yor sa xaalis ma jaay la man noonu laay liggéeyee liggéeyu ma kii day am sama ay race liggéeyu ma lool la moo tax tubaab bi du ñu jaay bi ñu koy tubaab bi gënuñu. te ñu ngi produire li tubaab bi di produire te mënoo ko jaay gars yi fii la ñuy bàyyi li nga yor dem jënd ji andi te li ñuy dem di jënd mi ngi fi loolu tamit war nañ di wax. donc su ma déggee bu baax élage élevage partage la mais nga am leen loo sulli mooy nga dëkk ak nit bu jege la ba dee yor race bu baax ras bu cher race bu nekk qualité nga bàyyi nga fi dem jënd sa àll ba lu war a loolu élage c'est xam nga élevage dafa am loo xamante ne toujours boo ko defee sa xel rek da ngay sonn diw fu mu jëndee laa jënd jee su ma jaayee daf may nax kooku ku koy def doo éleveur man lu ma gis ma bëgg te mu nekk fii nii balaa may paas oto di nga dem di nga jënd fii laa koy jëndee indi ko sama kaaf man nga génn dem jënd indi li nga indi li nga bàyyi fii gën ko te doo wax kenn pat ngay def ak moom soro doo ko nettali de. la kenn nga ko dul nettali. El Hadj ñëwaat si beneen mbir mooy kaaf bi ñëw fi xool naa bu baax mais mu mel ni alaaji dafa am ay bagage yu bëri wàññi ko ndax fekkoon naa fi ay tàmbu dress gisatuma leen gisoon naa fi ay lawal yu rafet gisatuma leen gisoon naa fi xeeti petax bu nekk gisoon naa fi même même tey jii nii ay negra gréñe gisatuma ko eh, fi rostov blanc gisatuma ko fi tudd prêtre de saxe gisatuma ko fi lu waral loolu sarnet yi gisatuma ko fi prêtre yaa ngi nii tàmbu dress yaa ngi nii sarnet yaa ngi ne la ngay seen kaa fi ñoo bari rek petax tas lawar lavande ñu ngi sama kër yaay chips égyptiens yi ñu ngi sama kër yaay c'est que dama dama tas pere yenn race yi dama leen tas bëgguma leen booleeg yeneen pere yi pour seen production di yéex moo tax ma séparé yenn race yu xaw a difficile moo tax mu tas mais nag wàññeeku noonu jaay naa am naa perte. ah kon El Hadj yow yoroo benn kaaf. non non kaaf a ngi si kaw a kaw kaaf a ngi sama kër yaay plus yi nii. moom daal mi ngi noonu élevage daal bàyyi nañ dóor mu dem dàqante moom jéem a wut luñ si am sant ga yàlla ah te disi bëgg na gaay yi comme ay grand monsieur grand chef Guèye bépp éleveur mu nekk fii nii te ngay def ay pitax ak yooyu noonu na leen sant gërëm leen ne sa waay lépp lu ñuy roote si àll ba mi ngi fii nii gaay yi nag yenn saa yi dañuy jéem a suul affaire bi waaye lii dina suli lu bëri. dëgg la donc alaaji fi nga daanee laaj ñëwee rek tey lan mooy sa relation ak yéen éleveurs yi nekk Ndar. man nag man ak éleveurs yi nekk Ndar man aw problème ak benn éleveur man kaa bu neex laay dem taxaw boo ma saaxaa sax après mën naa ñëwaat xool sa kaaf dem man li may dund moom fa indi bu fekkoon nit ak nit rek la mën naa la bàyyi man bu dee nit ak nit rek ñu am problème mën naa la bàyyi mais man élevage moo ñor lii moo fay indi lii laay xool si bu duufal samay bët bégal sama xol lolo waral may yar mais gannaaw loolu man aw maag benn éleveur problème. waaw alaaji ñu ni ma tey jii nii alaaji su bëggee tax lu mu cher cher cher cher cher cher cher du waxaa day ñëw rek jënd da ngay dëggal loolu. waaw mais man ma bëgg li ma bëgg man xam naa ne su ma ko jëndee un million dinaa si am deux millions damay jënd nekkuma fi di waxaale ndax production laay def damay liggéey kuy liggéey ak kuy ñëw di ñaba-ñaba bokkuñu alaaji bi tax un million bëriwul déggoo ma de lu amul perte serul bu doon jar dix millions nga jënd ko produire si ñaari ñaari ñaari ñaari production jaar ko dix millions am nga bénéfice soo perte ma nga yow amul perte kooku sànni so sa xaalis jëloo sa xaalis ñëw ba si dagg yi da nga jënd pour liggéey xam nga koy liggéey moom xam na lu tax muy dem di jënd lu seer kooku day liggéey bu fekkoon damay ñëw jënd pour décorer kese du ma def yenn xaalis yi damay liggéey. dëgg la donc tey mu mel ni élevage pigeon passion la waaye liggéey la ndax tey ku jël un million deux millions trois millions di def si tax kooku moom xam na bu baax fi muy dugal xaalisam. alaaji mel tey jii nii émission bi ñu ngi si njeexantal bi ma amaat loo xamante ni dama la fàttewoon laaj. te El Hadj xoolal investissement bi def lépp waaye ñi wax naan élevage pigeon dafay delloo kër ginnaaw loolu loolu leen di wax. tey dafa am loo xamante ne bu la ko doomu aadama waxee yow jàppee que ni kii gëmul yàlla tout court ndax yàlla moo ko sàkk sàkk la mais am na lu gën a garaaw pigeon te mi ngi si kër day delloo kër ginnaaw kenn du ko tudd mooy loolu kenn du ko tudd mais pitax bu doon delloo kër ginnaaw boo demee màkk doo fekk pitax. fii kuy dem màkk booy dem da nga yóbbaale xont bu demee petox yaa ngi foofu noonu da ngay xont si la ñuy lekk ba at mi dellu kon petox bu bonoon du nekk màkk. dëgg la loolooy wax ji. donc tey alaaji sama question bu mujj mooy tey jii nii alaaji euh, fan yee gis ngeen ni am na ñu doon dox pour créer benn association à Saint-Louis fii tuddee ko ASBAC ba association woon noonu taxaw na ba ñoom am na lu ñuy waajal ba moom mooy président bi. alaaji tey yow nan nga gisee élevage yu ndar démb ak tey ak association boobu noonu ñu bëgg taxawal. élevage yu ndar daal moom fi mu toll nii moom egg na foo xamante ni moom romb na ko fukk ni ñi njort foon élevage bi normal na baax na rafet na sujet yaa ngi fi nit ñu baax ñaa ngi fi kaw yu baax yaa ngi fi ku bëgg ñëwal kenn daal terewul kenn yar ku mën yar daal egg nga bokk si biir dàquñu kenn amul góor amul jigéen ku mën a ñëw pour bokk ñëwal pour bokk ndax lii. boole la élevage dañ boole ay nit mais bu fekkee luy taqale ay nit la moom jarul sonn mais kii pour boole ay nit la association bi def nii dina wuteeg ay association yu bëri te man maa la ko wax ndax lii def nañ association yi dul jeex lii mosul am kon ça dir dire que am na luy luy raam jëm si ñag bi nanu bàyyi ba mu yegg. amin amin donc mel ni am na association bu taxaw su fekkee ASBAC xam naa fan yii ñëw sax. seen émission parole aux éleveurs dina dem si CAF moom mooy président ASBAC seeti kër waxtaan ak moom moom mooy champion blanc yi bu mel ni ñu ngi àgg suñu émission alaaji lan ngay tàggoo ah, maa ngi nuyu gars yëpp képp kuy fii ci ndar bàyyi ma kenn nag éleveur nag boo ko waxee bàyyi woo kenn xar yeeg képp koo xamante ni yaa ngi ñar te dëkk ndar ñu ngi lay nuy di la gërëm di la sant di la ñaanal yàlla defal la jàmm si say bokk si lépp li nga xamante ni yaa ngi koy yar li nga si bëgg yaa xam yàlla na la ko si yàlla defal ak yéen a laa waxee amin amin amin allah ñu ko dégg mu wax mel ni ku ñàkk ki ñaan donc mbokk yi éleveurs yi ñu ngi seen jeexantal émission parole aux éleveurs te ñu amoon mbégte ñëw fii si Pikine seet si Alaaji moo koy gërëm ndax bi ñu ko woowee yàggul tegul benn condition bu yëppoon lool émission bi donc Alaaji loolu ñu ngi koy saluer attaque si biir aussi maa ngi gërëm monsieur Guèye grand capot di gërëm moom ma bii ànd ak man tey jii si émission bi di président ASBAB ñàkk ki ñaan ba ma ko waxee émission bi di nga El Hadj Laye Laye Dawal mu sawar si lool ñëw ànd ak man di gërëm aussi équipe technique bu Saint-Louis TV Ousseynou Noba Nobis di gërëm aussi El Hadj di leen sant di gërëm di leen jox di daje si yéen ay bis jërë ngeen jëf.